jàng wax tontu la jàng jàng wax mais loolu àndut lu ñu naan moo ànd lu ñu naan. waaw maa ngi lay nuyu tey version 12 nga woote def te yow nga dem Gambie def bu toog suñu seet version 12 nan maa ngi nuyu waa Gambie. bon xam nga nekk Sénégal très dara ak nga <laughs> nuyu waa Gambie. dañoo burux lu ci biir kontaan ci ñoom. wala ñu wala ñu acte Sénégal. ah waaw temps yii rek dafa mel ni burux la ma xew de. dafa xew de eh, xew na moom. maa ngi lay nuyu bu baax soxna Aïcha di nuyu le doyen Ramata ah, Euh, di nuyu soxna Salma am mbégte teewaat fi comme ni ñu koy defee altine bu jot. waxtaan ci géopolitique. mu ngoog mu waxtu bi xajul woon sax ma gën laa kii ndax blocage tey nga may da nga garaaw nag di waaye. garaaw nag dèjà maa ngi naan temps bi ngeen ma may moom 18 minutes. est ce que li ma koy wax yëpp dina moo tax ma ne la yow firi yow yaa yaa ñu sonal yow firi <laughs> yow yaa ñu ak fitna alors euh, Salma sans plus tarder dañuy ñëw très rapidement ak Léona. oui Léona euh, waxtaanu tey bi géopolitique. encore une fois donc comme ni ko waxee Aïcha chaque lundi ne géopolitique la ñuy waxtaanee euh, je pense que jamono yi yëpp ñu ngi doon waxtaan ci CEDEAO alliance des états du Sahel jamono ji euh, li nga xamante ne moo dox seen diggante ba alliance des états du Sahel daal di nag euh, fippu daal di créer seen alliance ñu ne non seulement mais ñu gën koo dëgëral daal di dippee yëpp yi ak confédération mais ci biir CEDEAO mu mel ne dafa am nit ñu nga xamante ne ñu ngi fa te ñoom ñu xam ñu leen ñenn ñi di xoolee wala waa alliance boobu di xoolee ndax saa xool rek jëmmi France gis ci ñoom di Alassane Ouattara donc euh, Mame Birame Wathie wala def taxaw seetlu ci moom intitulé sujet bi Alassane Ouattara talon d'Achille d'une CEDEAO unie lan moo tax nga wax loolu. waaw jërëjëf euh, Salma euh, xam nga bu yàggul dara président de la République dafa dem fële ca Abuja capitalu Nigéria daal di teewe sommet bu CEDEAO doon def. Mm. ci waxtaanu sommet boobu. ñu boole ko ci missionnaires yi nga xamante ni médiateurs yi nga xamante nii war nañu dem waxtaan ak dirigeants yi créé alliance des états du Sahel wala sax ñu mën a wax léegi confédération des états du Sahel. Mm. jéem a xool naka la ñuy def euh, waxtaan ba euh, ñu dellu siwaat donc man nag bien avant sommet boobu euh, maa ngi doon expliquer comme quoi que à l'état actuel des choses maanaam fi fi ñu toll nii. pour que ñu delloo si les pays de la confédération des états du Sahel. Mm-hmm. boobu sax loolu amaguloon ñu ngi woon toujours ci alliance des états du Sahel dina jafe-jafe jafe trop euh, le président Bassirou Diomaye fay mu ngi euh, wax ne comme quoi dafa war a am ay réformes yoo xamante ni dina am au niveau de la CEDEAO ba CEDEAO boobu méngoo ak aspiration population yi euh, ma jàpp ne au la de réformes yooyu nga xamante ne nii war na am. ci CEDEAO bi ñu koy créé le 29 mai 1975 euh, li ko taxoon a jóg mooy intégrer les populations africaines intégrer leen du point de vue économique. Mm. malheureusement texte yooyu nga xamante ne nii moom la ñu préparé woon dañu ko dévoyé ba tey jii nii sax CEDEAO maa ngi naan au lieu ñu naan communauté des états. communauté économique ma ne nañu wax communauté politique ñu jël e bi changé ko def ko ab P pourquoi parce que li nga xamante ne nii mooy wàllu économique dañu seetlu ne économie dañu seetlu ne CEDEAO daanaka dox ci benn jéego euh, te au la de ça ñu seetlu tamit ne à chaque fois qu'il est question de politique CEDEAO boobu da ci saf-saf hmm. léegi nag ma jàpp ne man au-delà de même des textes dafa am tey jii nii ñaari président yoo xamante ne nii ñoom ñooy véritablement la problème que au-delà des textes ak textes yi nu ñu ko mënti réformer tant que président yooyu ñu ngi ci bopp réew yooyu ce sera difficile pour ne pas dire impossible ñu indiwaat les états du Sahel autour d'une table avec les autres présidents de la CEDEAO euh, ñaari présidents yooyu mooy Patrice Talon ak Alassane Ouattara Patrice Talon bu Bénin ak Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire mhm. donc maa ngi def benn jeu de sax di wax Ouattara Talon d'Achille duñu CEDEAO uni CEDEAO mënul unir ci li ma jàpp tant que Alassane Ouattara mu ngi ci boppu Côte d'Ivoire Patrice Talon mu ngi ci boppu bene ak président yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci boppu Niger Burkina Faso ak Mali. Hmm. Euh, li tax ma wax loolu nag buñ commencé d'abord ci Patrice Talon xam nga bu yàggul dara toogoon nañu fii may expliquer comme quoi que dafa am benn euh, oléoduc benn pipeline <laughs> ñu mun ko wax ab tuyau. pour ñi gën a ñiy seetaan mën a comprendre ab tuyau boo xamante ne nii dafa am petrole boo xamante ne nii Niger parce que Niger dëkk bu ndóolu ndool la maa ngi fiy wax la dernière fois que bu ñuy def classement dinaan Sénégal bokk na ci lee vingt cinq pays les plus pauvres nañu jàpp ne ki nekk ci ginnaaw a ginnaaw a ginnaaw Niger la seen pauvreté boobu ñu gis tey ne ba fii Sénégal dañ koy yëg mhm. parce que du ñàkk ñu daje ak kenn benn xawu sa mm. wala ñu daje ak kenn koo xamante ni teg na machine ci euh, euh, mbagg bi di wër di wut ku ñawal donc ñooñu ay jafe-jafe yu tara tara tara tara tara moo tax ñu jóge seen dëkk yooyu di ñëw ci dëkk yu mel ni Sénégal pour di yalwaan wala di liggéey ay liggéey yoo xamante ni amuñu solo. Mm-hmm. léegi dëkk boobu nag bu melee noonu ba askanamam di daw nekkul ne dafa ñàkk dañ koo gérer gérer bu baaxul dëkk boobu wax naa ne waxati ko. Euh, euh, euh, uranium bii tax France mën a taal c'est cinquante six centrales nucléaires ba mën a jox dëkkam yëpp courant li ci gën a bëri Niger lay jóge kon dëkk boobu ndóolul mhm. ñu tekki bu weesoo uranium boobu mu am pétrole am gaz mhm. léegi pétrole boobu dañu waxtaanoon ñoom ak chinois yi ba ñu jàpp ne dañuy jaay chinois yi pétrole bi mais puisque Niger amul accès si géej gi dañu waroon a def benn tuyau <laughs> pipeline nag la ñuy wax maa tuyo rek pour ñëpp comprendre ab tuyau boo xamante ne nii day jógee Niger traversé ñeenti dëkk foofu xawma ñett dugg biir bene dem ba ci géej ga pour mën a euh, jox bateau bi nga xamante ni mooy jël si pétrole boobu mu yóbbu ko Chine mhm. ñu waxtaan ci mu nekkoon xaalis bu am solo bu chinois yi waroon na fay waa Niger mhm. euh, Bénin bi nga xamante ne nii foofu la tuyau bi di jaar également waroon cee am xaalis bu takku puisque chaque baril de pétrole. boo xamante ne nii Niger jaay na ko Chine. am na ci pourcentage boo xamante ne nii Bénin moo ko moom. Mhm. ñu dem sax ba jàpp ne produit intérieur brut bu benee maanaam richesse ba ñuy liggéey ci dëkk boobu. Mhm. plus de cinquante pour cent ci seen poor bi lay jóge te port boobu boo seetloo. ki nekk seen premier client maanaam ki nga xamante ne nii mooy tax quatre-vingt pour cent activité port bi di dox. mooy le Niger. parce que wax naa ko répété ko bu nekkee am nga port te amoo dëkk boo xamante ni da nga lëkk da nga takkaloo ak moom. moom amul port sa port dina am njëriñ mais yow rek lay amal njëriñ. puisque lii mën a tax mu am richesse mooy mu am ay produits yoo xamante ne jaar sa dëkk pour di dem feneen. Niger ak Bénin noonu la fa demee woon seulement ñu jékki rek. ñu ne Niger bi mu amee coup d'état Bénin dafa bokk ci dëkk yi nga xamante ne nii bi ñuy teg sanction yi dañ ne dañu tëj seen frontière bi ñu demee ba ñoom waa CEDEAO ñu jàpp ne war na ñëw tijji frontière boobu Bénin euh, euh, euh, Niger ne leen frontière bi nga xamante ni moo dox sama diggante ak Bénin duma ko ubbi parce que dama seetlu ne am na ay base militaire française yu nekk ci frontière ba te ñooñu ay terroristes la ñuy entraîner bi ñu waxee loolu danee ne comme noonu la demee moom léegi exploitation pétrole bi dootu ci dugg dootu ci dootu yëy du ci yàbbi maanaam fi mu ne nii pare na moom pour xaalis bi nga xamante ni dina ko gañee ci pétrole boobu mu ñàkk ko ndax xañ waa Niger tout simplement léegi nag bu nekkee loolu am na mhm. parce que euh, euh, au dernier chiffre ñu ngi naan euh, chinois yi doon nañ jox nigériens yi jusqu'à cinq cent millions de dollars bu nekkee dëkk bu mel ni Niger ndóol ba ma ne la seen askan dañuy dawee foofu ñëw fii Sénégal di yalwaa a def ay liggéeyu yu ñàkk solo. Mhm. pouvoir bu bees am ay militaire téye ko ñu ne militaire yooyu kat ka fa jële moom rek la ñu mën a négocier. Mhm. bu nekkee keneen la ñoom du ñu moom mu jaral leen sax ñu mhm. ñàkk xaalis. mais bu nekkee ne CEDEAO organisation boo xamante ne nii lëkkale dëkk yi ci wàllu économie moo ko tax a jóg. Mhm. ñu ne ñaari dëkku CEDEAO hmm? mu ñu ngi lëkkaloo kenn ki mooy permettre keneen ki mu mën a jaay pétrole ci wàllu koom ba tey. ci wàllu koom. Mhm. mais benn dëkk bi daal di bañ ne day koñaase beneen dëkk bi jël ay intérêt jéggi ko. Mhm. pour tout simplement neex français yi. parce que en définitive boo gisee beneen comporté woo noonu. te li ci gën a doy waar sax dañu dem ba nga xamante ni société bii exploité pétrole boobu ñu am ay ñoo xamante ni dañ leen a envoyé au Bénin ay Nigériens. ñu mhm. envoyé leen au Bénin pour ñu contrôler euh, pétrole bi nga xamante ni ñu ngi koy jëlee Niger di ko yóbbu ci bato yi xam nga bu ñuy compter baril de pétrole yi dañ koy compter à l'usine mais mhm. également dañ koy compter fu ñu koy joxe bato bi. Mhm. cargo bi koy jël si puisque si diggante bi mun na am lu ñàkk. ñooñu ñu envoyé pétrole boobu nga xamante ni ñu ngi koy jox euh, euh, euh, chinois yi béninois yi fexe fexe ba jàpp ci cinq personnes ne dañ leen di jiiñ affaire espionnage. Hmm. donc ñi ñi comprendre que tey bu nekkee CEDEAO économique économie moo nekk première mission. Hmm. moo nekk cheval de bataille bu ñu amee sommet ñaari dëkk seq lu mel noonu maanaam Niger tey am possibilité am difficulté pour génne pétrole beneen pays CEDEAO bloqué ko mais pour man loolu jaroon na waxtaan. léegi nag coow li mooy beneen bu mu jàppee ne moom mu ngi yàqal eh, Niger yàqalu ko CEDEAO lay yàqal. puisque pétrole bi nga xamante ne nii mu ngi génn Niger qualité bu mu am tax na àdduna bi ñu bëri dañ koy xëccoo ba mu jaral chinois yi tey ñu pare pour investir ci beneen oléoduc boo xamante ne nii day jaar càdd jaar Cameroun. Mhm. léegi au lieu que pétrole bi di jógee Niger traversé benn pays kese muy Bénin léegi dafa nar a jógee dafa nar a teggi Bénin jaar Tchad jaar Cameroun pour mën a dem ci géej gi. Tchad bokkul CEDEAO Cameroun bokkul CEDEAO. léegi xaalis bi ñu doon fay Bénin. mu war a dugg ci CEDEAO bu ñu demee ba di ko fay Tchad ak di ko fay Cameroun kan moo ciy per du CEDEAO. donc moo tax ma jàpp ne ba nga xamante ne nii coow loolu jóg na. ñoom ci seen bopp waa CEDEAO dañoo waroon na dox ay tànku jàmm bu ñu yónni woon le président Bassirou Diomaye ci mission bu mel noonu war laa mën a bett euh, euh, euh, Lemina ci jamono ji nga xamante ne nii gis nañ barki démboo ñaa la fi CEDEAO daal di embargo Mali <laughs> ci coowal képp nga embargo ci wàllu économie te yow nga ne économie war tax ngay wax am na yenn yoo xam ne c'est paradoxal un peu non non seulement non seulement c'est paradoxal sax mm. mais dama jàpp ne tey ji nii bu nekkoon am na ab mission de médiation bu ñu waroon a yónni nekkul pour ñu fexe pays yooyu ñu ñëwaat mais lii ma wax nii exemple la boo xamante ne nii mënoon nañ ci dox pour que jàmm am parce que bi nga xamante ne nii am na am na ñaari pré ancien président yu euh, Bénin mhm. Nicéphore Soglo ak Boniya yi ñoom ñoo jël seen baton de pèlerin pèlerin daal di dem au Niger pour waxtaan ak autorités yi ñu xool naka la ñuy def ba ñu trouver un terrain d'entente malheureusement puisque les Nigériens xam nañu ne Bénin ki fa nekk président da koy woote rek mais ab sous-préfet la. ñoom ñu préféré ut beneen solution boo xamante ne nii mooy gën a li ñuy wax pérenne maanaam mooy gën a yàgg mooy gën a dal seen xel. léegi bu boobaa comme nu ma ko waxee sax mais CEDEAO Bénin dina perte parce que tey jii nii bu nekkee Niger. day am ci pétrole boobu cinq cent million de dollars jàppal ne beneen au moins dina ci am cent millions de dollars léegi nag moom mu préféré xañ ko boppam xan ko population béninois béninois yi nga xamante ne ni wax naa ko sànq ci ay jafe-jafe la ñu nekk ki nga xamante ni mooy seen premier client Niger lañ defuñu ko lenn lu dul militaires yi nga xamante ni ñu ngi au pouvoir dinañu fexe ba koñe leen ba ñu am xaalis boo xamante ni dina leen mën a permettre. Mhm. ñu def seeni programme yi ñu déroulé. Mhm. donc kooku mooy Patrice Talon. Mhm. nga xamante nii tey digganteem ak nigériens yi. toll na foo xamante ne nii même ñoom bu ñu accepté woon ne dañuy ñëwaat CEDEAO bu ñu xalaatee ne dina am ci taabalu CEDEAO bu ab président bu tudd Patrice Talon ñoom dinañu hésiter parce que mhm. xam nañu ne kooku nekkalu fi ay intérêt Afrique. malheureusement. keneen ki nag. <laughs> mooy Alassane Ouattara di Alassane Ouattara te jàpp naa ne moom tamit mhm. mooy obstacle bi gën a mag sax euh, euh, par rapport ak. Mhm. Patrice Talon parce que Alassane Ouattara ñu bëri dañuy fàtte ne armée française ñoom ñoo ko installé au pouvoir ñu bëri dañuy fàtte ne Laurent Gbagbo. même bu nekkee ne du démocrate boo xamante ne nii mën nañ ko jël comme référence. Mm-hmm. mën nañ bu ñu fàtte ne il a fallu que armée française bombardé d'Ivoire ñu wut ay seeni rebelle yoo xamante ni ñu ci bëri Burkina Faso bii la ñuy jóge tey te Ibrahima Traoré mu ngi koy fàttali. Mm-hmm. bu mu naan suñu dëkk mosoon nekk arrière base arrière u terroriste yi. Mm-hmm. lu muy wax foofu mooy pour que Alassane Ouattara jot ci Côte d'Ivoire. il a fallu que ñu créer guerre civile Côte d'Ivoire ñi nga xamante nii ci ñoom lu euh, Alassane Ouattara sukkandiku woon. pour mhm. xeex ak Laurent Gbagbo ñu ci bëri Burkina Faso comme moom la ñuy jugee. parce que Alassane Ouattara bu ñu fàtte ne dëkk bu tudd Sendou. Mhm. bu nekk Burkina Faso la juddoo. loolu moo waroon coow bi sax ñu naa ndax Burkina be la wala. très bien di nga français yooyu nag. Mm. li ñu def noonu ba imposer Alassane Ouattara def ko président Côte d'Ivoire. ñoom role boobu la ñu bëggoon CEDEAO dem ba di ko jouer mhm. maanaam président bépp boo xamante ne nii coup d'état nañu la wala jàpp nañu ne comme ce qui s'est passé en Gambie da nga perte pouvoir bi bañ te bokk loo ci intérêt occidentaux yi ñu am une force boo xamante ne ni moom moo la fay jële mhm. France moo ko defoon en deux mille euh, dix defe naa ba fexe ba Alassane Ouattara toog ci place su Laurent Gbagbo. Mhm. Alassane Ouattara moom nag bi ko français di jàppale pour mu toog au pouvoir nekkul loolu ne démocratie moo ko tax a jox mhm. c' parce que dañu gisoon ci Alassane Ouattara élément boo xamante ne nii comme ni leen Houphouët-Boigny nekkalee woon Côte d'Ivoire. Mhm. nga xamante ne nii fépp fu ab dirigeant nekk te doxul ci ay intérêt France ci Houphouët-Boigny la ñuy jaar pour déstabiliser ko. ku weddi na nga laaj Thomas Sankara nu mu def ba ñu rey ko donc Alassane Ouattara li ñu gis ci moom mën na nekk continuité Houphouët-Boigny maanaam nekkal fi intérêt France yi képp koo xamante ni yaa ngi ci sous région bi bëgg a euh, comment def bras de fer ak France moom mu xam a yan pexe lay teg pour jéem la faa jële mm-hmm. premier exemple bi mooy Mali coup d'état am na fa ñu jékki-jékki ñu ne am na 46 militaires. ay force spéciale yoo xamante ne nii seen armement diis naa diis a diis a diis ba ci ñaari avion la ñu dugg benn avion boo xamante ni moom moo leen indi ak beneen avion boo xamante ni moo indi seen matériel ñu ne loo ñooñu mercenaires yooyu li leen taxoon a jóg Côte d'Ivoire la ñu jógee mm. li leen taxoon a jóg mooy daaneel nguuru Assimi Goïta mm-hmm. loolu ba mu amee gis nañu réaction bi am mu jub coow lu rëy mm. mais au delà de ça ñu ne kat CEDEAO yemul tout simplement ci euh, euh, euh, teg ay sanctions. Mhm. Mali yemul ci teg ay sanctions Burkina Faso. Mhm. dafa dem ba bi Niger bi fa coup d'état amee CEDEAO boobu boobu ne day ah, day intervenir militairement. Mhm. pour ñu jëlee militaires yi nga xamante ni ñoo nekk ci boppu nguur ga indiwaat fa Mohamed Bazoum mais bi loolu amee président bi nga xamante ni moom la ñu gis <coughs> pardon mu gën a fës ci xeex boobu gën ci radical. du kenn ku dul Alassane Ouattara parce que bi président yi defee seen waxtaan ba pare Alassane Ouattara moo taxaw devant tous les journalistes de la planète mu ne Côte d'Ivoire pare na pour intervenir au Niger tey jii nii am na ab contingent maanaam entre huit cent et mille hommes yoo xamante ni mobiliser nañ leen pour dugal leen ci force boobu ñu fas ne jëflante ak militaire u Niger yi donc mu téye mu yor un discours radical boo xamante ni tegu ko ci lenn lu dul bëgg-bëggu France comme ni ma leen ko waxee au départ. Mhm. bu nekkee ne français yi dañu euh, euh, euh, bombarder Côte d'Ivoire. Mhm. fexe ba imposer ko foofu. c'est parce que jàpp nañu ne dans la sous-région am na rôle boo xamante ni war na leen koo jouer. Mhm. te role boobu ci la nekk bi coup d'état bi amee Niger. Nigériens yi. ñoom li fa li fa xew. mettiwu leen. puisque génn nañ ci mbedd yi manifester. mais euh, bu nekkee nigériens yi ñoom d'accord nañu coup d'état bi am hmm? ana kan moo war a nekk dans la sous-région koo xamante ni loolu war na laa métti bu nekkee nigériens yi ñoom accepté nañu ko alors que askan bi boo xam ñoom dans la réalité hmm. ki nga xamante ni dañ koo coup d'état hmm. nekkalu fa woon nigériens yi. Mhm. français yi la fa nekkaloon. moo tax bi ñu ko coup d'état wee mu métti France ba France organiser ci saa si saa ab conseil de défense pour xool naka la ñuy réagir par rapport ak coup d'état boobu te réaction bi nga xamante ni moo gënoon a muscler. Mhm. mooy réaction wu Alassane Ouattara. Mhm. moo tax ma jàpp ne ñaar ñooñu ñoom ñooy obstacle. CEDEAO même bu dee dañuy changer tex yi. même bu dee dañ koy defaraat. bu tant que ñaari président yooyu ñu ngi ci seen bopp réew yooyu. Mhm. pour que CEDEAO nekkaat benn. luy jafe lay doon pour ne pas lu lu nekk la. day doon lu jafe en ah, Salma vu que jant bi sax est-ce que dinañu nangu toog ak ñoom ak tout ce qui s'est passé. dina nekk lu lu lu compliqué ah, on va peut-être de revenir si le cas Bassirou. naka la disséquer kàddu yi nga xam ne le président Bassirou Diomaye Faye yëkkati na ko ñeel médiation boobu parce que ci ay kàddoom nee na c'est médiation dont on m'a impliqué noonu la ko waxee de français moo bu ci nekk rek ak signification mm-hmm. dem bay joxe l'exemple du xëj nañu kon ñu kaat ko xëy na ci mercredi am yaa live am ak madame Diop incha allah. mais bien sûr incha allah dinañ ko euh, daal di wala mu joxaat une exclusivité lundi prochain rek pourquoi pas def suñu continuité. bu bu am bu am maanaam tàng moo doyul quoi sax ma wax tuuti ci Trump. ay Trump accident wam bi su ne tey li ñu privé bari na trop yow la quand alors merci Emina ak lu mu gàtt gàtt lu mu xat xat xat nga euh, suuf lu lu am solo jaajëfaleen mbokk yi c'était euh, le réveil de ce matin jaajëfaleen bu baax a baax depuis ñoon accompagné depuis 6h30 ñu ngi également toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la réalisation et la coordination de cette émission présentée avec un immense plaisir restez scotchés